Abdou Faty maa ngi lay nuyu. maa ngi leen nga nekk secrétaire général bu syndicat des enseignants libres euh, du Sénégal SELS authentique ni gi ni 3 euh, octobre bi enseignants yi euh, dellu nañ ci classe gi naka nga ñu lan nga ñu si mën a wax exactement. waaw effectivement enseignants yi moom dellu nañu si classe bi parce que ñun syndicats yi dañu am aada aada waxtaan ak sunu camarade ni leen bu ñu kenn jëm naa donc kenn bañ ñu jàmm su école ubbee rek yéen ñëpp dem leen rejoindre seen poste lu mu metti metti même su dee doo leen fa fekk école sax dem leen ngeen toog ñu gis leen enseignants yi moom def nañ ko donc sunu yëpp ñu ngi seen poste de Kédougou à Saraya en passant par euh, Bakel jusqu'à Ziguinchor ñoom ñëpp rejoindre nañu seen poste waaw di xaar nag euh, commencé nañu sax ñoom def conseil de classe yi répartir u tâches yi xool kuy yor classe bi ak ku yor classe bi di xaar nag euh, xale yi ñëw xale yi ñëw jeudi wante ni ko gisee si dëkk yu bëree bare ñëw xale yi moom dina metti parce que euh, école yu bari kenn bayu ko école yu bari abri provisoire yi defaruñu ko euh, école yu bari daal kenn désinfecté ko waa waa service d'hygiène ñëwuñu donc dina xaw a jafe daal waaw comme ni nga ko waxee ni gini ni 6 octobre bi ci la xale yi war a euh, dellu kon condition yi daal bu ma la déggee euh, yombagul pour euh, ubbi tey jàng tey daal di mën a am pour xale yi tàmbali moom yembagul parce que jëwriñu nguur gi muy premier ministre Amadou Ba ajjuma passé daf ñu ràng daf ñu daje ñu daje fukki ministre juróom waaw ñu siy waxtaan moom si boppam wax na ko ne ah war nañu góor góorgóorlu nag waaw pour yëf yi yemb joxe na nag ay ay tegtal ay ministre de forces armées ministre de la jeunesse ñoom ñëpp jox na ne ay tegtal pour ñu góor góorgóorlu defaraat classe yi góor góorgóorlu góor góorgóorlu euh, bay école yi ba pare joxe na sax ay ndigal euh, ministre de euh, ministre Mamadou Talla bi géré affaire u maintenant territoire yi wax ko nañu góorgóorlu ñoom ñëpp puisque c'est un c'est décentralisé maintenant Euh, éducation moom gox goxaan yi ñoo koy gérer ñu góorgóorlu Euh, jéem a mettre euh, matériel bi sur place donc gis nga ni nii te àjjuma passé lañ ko def donc euh, école bi moom mënul yem dañ ko naajee def nag mais boo que tard que jamais suñ ko teeloon def sax dañu xam ni xale yi suñ ñëwee rek dañu commencé mais ñu ñëpp gis nañu dañ ko naajee def. ñu gis ne tamit am na école yoo xamante ni ba léegi ndox mi ngi fa wala sax ñi nga xamante ni seen kër yi dafa inondé woon ci nawet bi ba léegi ñu ngi ci école yi loolu lan nga ñu ci mën a wax Abdou Faty. waaw li ñu si wax loolu moom dëgg la la euh, dëgg la ba nga xam ni sax premier ministre bi joxe na ci ay directives mais nañu fexe daal fii ndox mi nekk sapeur pompier yi basu si ak nañu fexe daal fii euh, problème yi am yëpp euh, nit ñi waa waa waa waa kii sapeur pompier yeeg ñoom ñëpp lijjanti ko donc loolu moom réalité sunu Sénégal yi nga xam ne dañu nekk si jafe-jafe yooyu ñu xool également ñu di dugal loolu moom premier ministre wax na ko donc loolu moom dëgg la. ah léegi nag la balle est dans le camp du gouvernement pour ñu koy waxee ci tubaab ñoom ñoo war a góorgóorlu waaw fexe ba génne école yi si ndox yi fexe ba suñ Sénégal yi nekk si euh, ndox mi également ak si classe yi ñàkkoon fexe ñu am pour leen loger pour euh, enseignement yi école bi mun a démarrer. léegi concept ubbi tey jàng tey ba ñu ko lancé euh, yàgg na mais lan moo tax ba léegi mënul nekk loo xam ne réalité la fii ci Sénégal. waaw concept ubbi tey jàng tey wax dëgg yàlla comme ni ñu ko waxoon mébét bu baax la idéal bu baax la euh, mais li ñu constaté ba tey yëf yi yemb lu tax mënul yemb mooy ni ñu koy doxalee la gis nga euh, gouverner ni ñu koy waxee histoire c'est prévoir nguuru Sénégal de pour concept bi mun a nekk dañu war a fexe at bu ne balaa école de su desee weer ñun ñëpp ñu toog ñu xool luy jafe-jafe yi ñu jublu si <coughs> wante dañuy xaar ba mu ne këtt na joll dañuy am problème donc vraiment yéene bu baax la wante tegaguñu moyen yoo xam ne moo ñuy permettre ñu am ubbi tey euh, ñu gis ni tamit euh, ñu ngi wax ni euh, li lee di inscription yi dafa daal di cher trop dafa yokk surtout ci école publique bi Abdou Faty loolu lan nga si mën a wax. waaw wax nga dëgg loolu moom waaw loolu moom dëgg la inscription yi moom yokk nag doole. waaw si école yi maintenant nag te pourtant li ñuy wax yëpp mooy dañ ne Sénégal l' école publique l' école est gratuite l' école est populaire l' est démocratique wante gis nañu ni dafa cher non seulement cotisation yi dafa cher mais également yow parent d'élève bi yow yaay jënd bic yaay jënd kaye yaay jënd saak yow yaay jox tamit goûter yow yaay jox ndékki yaay jox cantine bi yaay jox transport donc soo xoolee yëpp ci éducation xale bi parents yi moo koy jël à soixante dix pour cent donc gratuité bi ñuy wax dafa des moo tax nag même ñun syndicats yi ñu ngi koy dénoncé nañu wàññi cotisation yi au niveau international ñun ñëpp ñu ngi manko pour école bi delluwaat li mu nekkoon mooy ñu pousser xale yi matériel ñu def si moyen d' argent école bi euh, état bi soutenir si lu bari Euh, mais malheureusement école bi nii suñ ko jàppoon nii dañ koy nar a privatiser mais ñun également dañ xar suñu tànk bay pour ñu wàññi cotisation yi xar suñu tànk bay pour xale ñu jox leen matériel. Euh, tey jii yéen jàngalekat yi lan mooy seeni jafe-jafe yoo xamante ni bëggoon nga bëggoon ngeen plutôt gouvernement bi daal di ci euh, taxaw. waaw ñun gouvernement bi li ñu leen wax leer na mooy gaa gis nañu ni nguur gi de def na ay effort wante dafa am loo xam ne des na loo xam ne des na même su doo su dee sax du nekk xaalis mais loo xam mooy suñu condition de travail dañuy nekk si ay classe abri provisoire abri provisoire six mille abri provisoire moo nekk Sénégal li ñu wax ni ñuy hmm. ñu teg benn programme boo xam ne dañuy résorber abri provisoire yi. fexe également pour recruter assez d' parce que da ngay gis nga yor ay téeméeri élèves loolu kenn mënu si jàngale euh, ñu fexe liñ naan lenteur administrative ce qui def ay puissance circuit bi nañu fexe ñu lijjante ko donc yooyu yëpp suñ ko lijjantee lijjante ko si tey si si jekk du am problème sa dépend te wax nañ ko premier ministre àjjuma hmm. ne ko seen ministre yi góor lu di waxtaan ak nit ñi pour ñuy régler problème yi si tey si dal benn par benn di di dem di jànga di jàngale di ñëw di régler problème yi coow du am mais su dee li ñuy def la ñuy continuer def mooy problème mu euh, avancement yi nekk fi duñ ñu faale problème mu décision yi nekk fi duñ ñu faale problème mu arrêté yi nekk duñ ñu faale abri provisoire jéemuñu dara ah jigéen ñu euh, dee ñu gis ni uh, seen salaire yokku na uh, est-ce que kon mën nañu wax ni euh, ren ji yëngu-yëngul du am ci année scolaire bi comme que salaire yokku nañ te gis nañ ne bu ngeen di coow en tout cas lu soxal wàllum salaire soxaloon na leen trop. waaw lu soxal wàllu salaire moom am na solo wax nañ ko mais li ma la wax sànq tamit mooy du deñ mooy ñun au delà du salaire dañuy jàngale dañuy jàngale conditions yi jàngalee baaxul yu si bëri baaxul wax nañ leen ko donc du salaire bi rek moo ñu tax a jóg abri provisoire tax nañu jóg xale yu bëri si classe yi tax nañu jóg et également lenteur administrative tax nañuy jóg donc loolu mun nañ ko régler c'est des problèmes résiduels comme ni ñu koy waxee mun nañ ko régler si teey ak njekk mais suñ ko deful rek problème am mais au-delà de l'argent moom wax dëgg yàlla euh, yi ma cité sànq euh, dañ si góorgóorlu dañ si góorgóorloo jàmm am. mais nee nañ Abdou Faty yéen enseignants yi li ñu yokk seen salaire dafa ëpp de li ñu leen yokkal dafa ëpp est que lu ne nguur gi dina mën a continuer di ko dékku loolu lan nga siy tontu. <laughs> waaw mais mais. dëgg la dëgg li ñu yokk ëpp na wala ëppul. mais ñun ñu ngi yokk suñu salaire yi ëppul parce que ñun gouvernement bi am na lu ñu desal au mois de janvier. Mm. mais enseignant loo ko jox doyul parce que yéen ce que vous avez plus cher mooy vos enfants vos enfants ñun ñoo leen yokk donc réew également euh, réew su bëggee am avenir day miser sur éducation donc loo jox enseignant yi. Euh, du doy tey xam nga lu xew lu xew France ak Belgique. Hmm. mooy kenn bëggatul nekk jàngalekat. dañ leen di wax kaay leen ñu bañ parce que niñ leen niñ leen di fayee baaxul donc ñun bu ñu suñu suñu suñu naree continue ñun tamit suñu dof loo bañ a mettre enseignants yi daan très bonnes conditions. ñëpp kenn dootul bëgg a nekk ci enseignant si su kenn nekkatul enseignant réew mi pëcc xool yi doon comme pëcc xoo bi ñu gis ku nekk def lu la neex manque éducation bari fii réew mi nërmeelu Euh, naka gisee seen ministre bu bees bi ñu indi leen Cheikh Oumar Anne euh, dindi fa euh, Mamadou Talla yéen déjà naka ngeen gisee profilu Cheikh Oumar Anne en tant que ministre de l'éducation nationale. waaw xam nga xam nga xam nga ñun du ñu def benn jugement de valeur li ñu gis mooy. nous hmm. prenons acte de sa nomination. ba hmm. pare également di désolé ni éducation nag wax dëgg yàlla à quelques encablures de la rentrée. waroon nañu bàyyi ki fa nekk ñu continuer liggéey wante nag puisque chef de l' mooy jël décision nguur geeku ak euh, Sénégal yi ko jox lu prenons acte li ñuy wax Cheikh Omar Anne rek mooy li fi taalaa doon def mu continuer si di waxtaan ak nit ñi di diisoo ak nit ñi problème mu jàngalekat yi mu taxaw si su ko defee jàmm nañu su ko deful nag ñu jàmmaarloog moom. am na ñuy wax sax euh, Cheikh Oumar Anne niveau pour nekk ci éducation nationale euh, di ko xarab en tout cas ci réseaux sociaux yi jàpp nañ ni sax ku ne dina ñëw euh, doggale benn yoon éducation nationale. yow loolu d'accord nga si waaw wala déet. xam nga nag ñun syndicat am nañu fulla fayda boo xam ni ak am nañu am nañu mat boo xam ni lu ñu def ay jugement de wala nit ki rek c'est à la pratique lañ lay xoolee euh, su ko defee à la pratique ñu xool ndax euh, mérité na ko wala mérité wu mérité wu ko su ko mérité wul on va dénoncer ça su ko des deux mains mais yi si des moom c'est des réseaux sociaux yi considération yi ñoom ñun ñu duñ si dugg en tant que responsable. lan mooy défi xaar euh, kon Cheikh Oumar Anne. li ñuy xaar Cheikh Oumar Anne rek mooy mu privilégier concertation mu privilégier dialogue li ñuy xaar si moom mooy mu interpeller ay naataangoom yeneen ministre ne leen fexe leen régler problème mu enseignants yi parce que soo leen ko réglé wul si man lay këppu nekk suñu porte parole foofu moom loolu la ñuy xaar si moom. beneen ponk peut ñu laaj la ko ci actualité bi euh, lu soxal mesure yi nga xam ne njiitu réew Sénégal jël na ko pour wàññi euh, dund gu cher gi nga xam ne ñëpp a ngi koy en tant que sénégalais naka nga gisee loolu. waaw en tant que sénégalais et syndicaliste également kooku daf ko war a def daf si war a gis nga su suy jubluwul même ñun syndicats yi ak ak yi dañuy gën demande ñu yokk suñu salaire donc dañ si war a jublu ba pare dund bu cher gi tamit pagaay yi moo ko indi mooy nguur gi dafa croiser les bras bàyyi commerçant yi ñu jël ñu en otage nguur gi dafa war a jël ay responsabilité organiser commerce bi organiser lépp même su dee au niveau national au niveau international c'est difficile mais kii moom difficile na mais dañu bàyyi désordre boo xam ni jaaykat bu neex waay def lu neex waay def fixé ay prime loolu moo fi war a donc àndoon nañu ak ñiy xeex ñëpp ñu wàññi dund bi pour euh, ñëpp nekk ci jàmm. même plan bu mu jël pour euh, wàññi euh, location bi tamit lan ngeen ci xalaat yéen enseignants yi. waaw location bi gis nga suñ ko wàññee ñun li ñuy xeex ñëpp naan jox leen ñu ay terrain jox leen ñu leen ñu ay parcelles yooyu yëpp peut-être dina wàññeeku loolu dañu war a def comme dëkk yëpp surtout fonctionnaires yi tabax ay logement euh, jox leen ko ñu koy fay euh, weer par weer ñu fay ko quinze ans fay ko vingt ans nekk si jàmm lutter contre également inflation wu loyer bi vraiment loyer bi moom wax dëgg yàlla su ko nguur gi jëlul en charge mun na nekk bomb bu extraordinaire si dëkk bi. ñu am yaakaar tamit euh, ci yéen li ngeen doon kaas actuellement peut-être état bi teg na benn plan pour jàppale enseignants yi mën a am terrain mën a am kër tabax bala ñuy retraité. waaw waaw état bi teg na ko mais loolu ça fait maintenant quinze ba tey yi fi bougé wul mi mar suba woon nañu pour xool surtout DMC bi naka lay bougé am nañ si yaakaar ni ah, dina relancer wu su relancer wu également mun na nekk solution pour lutter contre loyer yu cher voilà Abdou Faty Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal jërëjëf may fàttali yow yaay euh, secrétaire général bu syndicat des enseignants euh, livre euh, du Sénégal Sels Authentique waaw noonu la jërëjëf